teel ko biir a métti ci ñu ngi lay nuyu. ñu fay. Euh, nga ba pare. Mhm. yan kàddu xanaa sant yàlla. ndax euh, voté nañu def sunu devoir maanaam li nga xam ne mooy sunu wàccuwaay. Mhm. Euh, voté nañu ci jàmm ak salam dugg nañu ci biir salle bi gis nañ ni wax dëgg yàlla lépp euh, tegu na yoon euh, donc def nañu li nga xam ni moo ñu war di wax rek ni man at bu jot loolu lay ñaan à chaque euh, élection mu nekk ci jàmm te li ñu gis fii dégg ko un peu partout aussi wane na ni pour la première fois am nañu ay élection yoo xam ni mu ngi déroulé wu ci jàmm ak salaam dans le calme tey macha allah ku xool sax ni yàlla defaree wax dëgg yàlla temps bi clément na et vraiment je ne vois que la paix autour de moi maintenant euh, du ñàkk toujours comme euh, euh, toujours élection dina am parfois ay couac et léegi nii bi ma woowee sama président de la commission électorale di ko laaj la nax lan lañu ñu noté ñu ngi may wax ni am na bulletin yoo xam ni seetlu nañ ko ay quelques erreurs la dañ koy jàppee erreur xëy na mais daal en tout cas am na ay euh, bulletins yoo xam ne photo Ousmane Sonko feeñu ci am na ci bulletin Pastef yoo xamante ni aussi ci ginnaaw dafa weex loolu lu ñu war a signaler la parce que euh, élection lu sérieux la am na ñu ko organiser faaw ñu xam kon li nga xamante ni moom la seetlu leneen li mooy xëy na bon li ñu seetlu mooy euh, calme na torop hmm. donc taux de participation bi euh, am nañu xëy na gis-gis ne euh, xëy na xaw na des mais waaw dañuy xaar peut-être xëy na ngoon gi ah. façon ñu ngi fi ah. on va attendre d'ici l'après-midi pour voir parce qu'on attend beaucoup de notre jeunesse ah. te lii ñuy def tey acte bu ñu war a poser la te jeunesse bi surtout moo ci gën a am loo xam ni war na ko war na ko jouer ñu ngi koy xaar parce que mag ñi la ñu seetlu ne le matin très tôt mmh. ñëw nañu en rush parce que moi je suis les choses euh, chaque heure mais gis nañ ne mag ñëpp génn nañ kon nag jeunesse bi la ñuy xaar ñoom it ñu ñëw yegg li seen part euh, ah, de la chose mu bés bu am solo ndax a toogal ci assemblée uh-huh. euh, di wax rek ni liste bi ñu am liste bu mat sëkk la liste boo xam ne góor ñi mat nañ jigéen ñi mat nañ mais liste boo xam ne pour la première fois ñu ci gis des arabisants. ñu ciy gis des personne vivant avec un handicap lu musul am Sénégal égalité de chance ñun dañ koy mës di prôner mais surtout égal dignité dañ koy mës di proné donc list la boo xamante ne ñi ci nekk ñu boo ko seetee ba ca biir ay nit ñoo xam nañ la dañu leen a ràññee ci la ñu nekk di liggéey parce que du ne rek dañu ne dañuy politique donc politicien la ñuy jël dugal ko ci donc list boo xamante ne la macha allah mucc na ayib pour une assemblée de rupture et comme pendant le dernier jour de de campagne jigéen ñi ñu ciy def tamit ay jigéen ñu ñu yaakaar ni rupture bi ñu bëgg ci assemblée danañu ko apporter mooy lingeer yi nga xam ne ñoo nekk ci Pastef lu tax ñu koy wax mooy dañu daan gis jigéen am taxawaay assemblée di xeex di saaga ñu koy defloo di ko yuuxuloo jigéen du apporter dara lu positif ci li nga xam ne mooy doxal réew mi enfin nous allons voir avec cette nouvelle législature ay jigéen yoo xam ne danañu wax waxi askan wi danañu wax coonay jigéen ñi danañu wax coonay xale yi nga xam ne ñooy sunuy doom danañu taxaw taxawaay bi war ci biir assemblée nationale. Mhm. wax nga ko léegi yaa ngi doon wax wax nga ko léegi yaa ngi doon wax des na. Mhm. mag ñi lañ gën a gis ñoom lañ gën a ràññee. ñoom mhm. matin léegi yow lan yi nga xamante ni si ñoo dëkk fii Patte li ma leen di wax leen na la rek foog naa wax naa ko léegi ma répété ko nañu génn te xam ne nous sommes en train de jouer les pages de l'essor du Sénégal de l'essor socio-économique du Sénégal les pages yi nga xamante ne ci la ñu yaakaar ne buñ sukkandikoo xool ko dinañu xam ne enfin le Sénégal a ce faut pour se développer donc ñoom jeunes yi ñoo tax ñu di ko def ñoom jeunes yi ñoo tax ba tey ñu yegg si fii ñoo tax ñu dund li ñu dund ndax li ñu daj yëpp ci dóor ci kaso ci metit ñoom jeunes yi ñoo taxoon ñu nangu ko kon tey jii ñoom ñoo war a génn feddali kóllëre bi mais ñoo war a génn surtout pour garantir seen avenir bi nga xamante ne nii moo tax tey ñu taxaw fii di def li ñuy def donc les jeunes sortez génn leen te xam ni actuellement yéen la ñuy xaar parce que au plus tard à 17h war nañu confirmer donc ñu ngi leen di xaar ngeen ñëw def seen waruwaay. une dernière question noo gisee sa centre de vote. sama centre de vote ah xanaa comme d'habitude ah je vois des gens yi nga xamante ni at bu jot les citoyens dañuy ñëw voter. toujours ci bunt bi la ñuy taxaw nuyoo waxtaan mais je vois un climat sain mhm. parce que tous les partis sont là toutes les coalitions sont là mais nous sommes des sœurs nous sommes des frères ñun ñëpp jàmm la ñu seq ñoo màggandoo parce que depuis soixante-dix ñun ñëpp ñoo màggandoo fii ci Patte d'Oie te politique waru ko yàq tey li ma gis mooy li ma namm rek li ma mës a bëgg ci Patte jàmm ak salaam